séeri mbaroodi maa ngi lay ziaraat. maa ngi lay delloo ziar. am nga jàmm tey de ñëwaat nga kër Balla Gaye anniversaire bi toog ak buri bàjj sa doomu ndey. waaw ñun famille lañu famille lañu ba pare ñu nekk euh, ay nit ñu baax jabaram nekk nit ku baax. buri sama mag la sama xarit la fu mu ma woo rek ma wuyu ko rawatina nag jëkkëram mu nekk nit koo xam ne nit ku ma fonk la bëgg ma yamalewu ma ak dara fu ne laa koy wax Balla yamalewu ma ak dara bëggul dara lu ma naqari bëggul dara lu ma def lu mu jàpp sax su ma ko nee mu bàyyi te cër boobu jox na ma ko ma koy ñaanal nag anniversaire mu toog ba doomam yi mu ci am ñu di ko ko feeteel ay ati ati at yàlla dolli suturaam ak mën-mënam am amam dolli ko sutura bu baax a baax a mu song mu daan ko kontaan naa trop. Boury maa ngi yàlla yàlla nangu ziar. di la happy birthday to you. waaw parce que anniversaire moom yéen ñaar benn ngeen du ngeen ñaar benn ngeen. waaw du ñu ñaar benn lañ euh, liñ naan euh, nu mu tudd caakiri ak soow la yëngal tuur moo anniversaire ru waaw anniversaire ñu koy féete loo yëg. waaw kontaan rek di ñaan yàlla. ñu féete koy at yu bëree bëree bëri bëri rek laa ko ñaanal. mbooloo mi fi teew. kàttanu borom Tuubaa waaw mbooloo mi di leen sant rek di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen remercier di leen gërëm wax ne c'était pas évident ñu ñëw mais dañoo jàpp Omar rek may ñaan seen relation ak Omar yàlla na gën a yàlla na sax. sa digganteeg Séeri Baboy mi toog. waaw sama doom nday la. sama rakk la muy nit baax macha allah li mu rek léegi famille lañ waaw léegi famille bi benn la famille lañ ndax sama jëkkër jëkkër vraiment benn moom waxi noppi njaboot gi tamit benn lan waaw ñuy ñaan yàlla yàlla def ko saxal may ñu ñun ñëpp gudd fan ak wér yàlla defal ñu jàmm defal ko mbooloom jël ci kàttan yàlla barke ak barke bu mu mel ni yéen soxnaay mbër yi lu seen borom kër yi nekk yéen a nga ci ak ñoom waaw loolu mooy yoon même burul bët sax àdduna ah, bi kay ku am borom kër rek lu mu ne dañ caa war a nekk ak moom waaw loolu defe naa loolu la de gis naa Bombardier seeti naa ko démb gis ko muy joxe ay ceeb ak ay suukar ànd ak madamam ma ne démb dem naa Mbuur fekk Bombardier ak madam ñu ànd di joxe ay ceeb ay don magis gis kooku ñu soxna si topp ko yow itam ma gis la yaak madame Baboy mii fu seen soxna si borom kër yi ne ngeen ñëw taxaw mooy buur bi di ko ñaan ci kattanam ak barke yonent bi ma ñu ndam ci kawam rek loolu rek laay ñaan. Bombardier loo koy wax. waaw di ko ñaanal jàmm rek ba bis ba incha allah waaw. kontaan. waaw kay jërëjëf. Serigne Touba gën a boole. dina yàlla gën Serigne Touba tey ak ëllëg. li ma jox nag nii moo ma gënal milliard barke alxuraan moo ma gënal milliard moo ma gënal xaalis moo ma gënal xaw nu doon sant naa ko gërëm naa ko li ma tëralee di teral la teral ko moo gën milliard walaay laa yàlla na ko sëriñ Tuubaa teral yàlla na ko sëriñ Tuubaa jàppale maa ngi ñaan yàlla yàlla yàlla guddal fanam te wér a cëram di ko sant di ko man dañ may dundal dañ may dundal. mais daa jël lii ne ko doo fi dugg. non dañ may dundal ñoom ñaar barke alxuraan damay toog di reetaan léeg-léeg dama yëpp dégg mu woo ma ne ma fii li ko def. war nga waxee lii ak léegi moom tamit noonu kon ñoom ñaar daal seen jàmm yàlla yàgg ndax dañuy bëgg Sénégal yi. tey jubóo leen waaw sëñ Tuubaa boole na leen gis nga ne. sëñ Tuubaa boole na leen. mais maa ngi soog kese bi rek fii nag maa ngi soog kese bi ma ne ko xoolal ma ko. fóot nañ ko fóotandi ko. xam nga jubóo ngeen dafa def. waaw jubóo ngeen dafa def bu yàqaat. waaw waaw waaw jë puusal leen. kay eh puusal. ah waaw waaw. ndeysaan waay lii